dellu ci ci li nga xamante ne mooy les fondamentaux mhm. euh, am ci waaw dafa naa sama intervention dama koy teg rek ci intervention président Idrissa Seck comme ni nga ko xamee donc man ci politique président Idrissa Seck mooy sama kilifa mais également mooy suñu kilifa mën naa ni sax ci àdduna yàlla dogal moom laa àndal tey ñu dem julli ci comme d'habitude macha allah donc ñun ñëpp ñu suivre donc sermon imam bi muy xutba bu am solo donc ndax euh, laal na ci aspect yi nga xam ne tey moom la Sénégal di dund te li ci ëpp solo wax ngeen ko sànq muy mbiru yar l'éducation qui est la base naturellement de toute société ndax su yar amee donc euh, ñu xam ku nekk li nga war a def ci société dina tax dund gi ñoŋ dina tax également li nga xam ne mooy projet yi nga xam ni dañ koy mëbët ci biir société bi yàlla mootali ko jàmm ba tax na kon l'éducation est fondamentale et loolu nag ñi nga xam ni ñoom lañ ci mën naa ni gën a ñoo am ci la plus grande part de responsabilité ce les parents ndax parents yi ñooy jur njaboot yi ñoo leen war a yar donc seen responsabilité première moom la ñu interpellé d'ailleurs imam bi wax na ko donc président Idrissa Seck wax na ko également jur yi ñooy ñoo war a yar te ñun ñëpp soo gëmte ne tey dañu xalaat ni yaru nañu parce que suñu waajur yi ñoo investir ci ñun pour yar ñu teg ñu ci mun naa ni yoon teg li nga xam ni moom la ñu bëgg euh, nit comporté wu ko ci société bi macha allah maintenant dañu seetlu nag euh, peut-être yar boobu mu ngi xaw a un di sooxe tuuti continuer tenu naturellement de l'évolution du monde et de nos nos sociétés ba tax na euh, tey yar bi xaw na sooxe mais malgré cela dafa naa ni parent yi war nañu gën a conscient de leur responsabilité xam ni c'est leur responsabilité première et ku nekk nga bay sa sawaar moo tax man damay profiter de l'occasion pour lancer un appel aux parents ñun ñëpp ay parents lañ ñun ñëpp ñu gën a bàyyiwaat xel aspect boobu ndax tey li muy yàq bëri ku nekk nag da nga koy commencer ci sa bopp li ñu naan bay sa wewu tànk ku nekk say doom ak ñi nga xam ni ñoo ne ci sa responsabilité nga indiwaat yar bi nga xam ne moom la say waajur yare woon la ba tey ku la gis naw la ci sa jikko ak ci sa comportement loolu suñ ko indee parent bu nekk def ko sa waaru bopp def ko sa responsabilité bopp def ko sa yitte bopp yàlla mën def sutura c'est vrai aujourd'hui on dit que Google mooy maamu xale yi wala les réseaux ci la xale yi di je suis d'accord c'est parce que le monde actuel c'est le contexte mais il n'en demeure pas moins que responsabilité parent bu nekk interpellé nañ mais aussi bu nga xam ni am nga ci mën naa ni loo ci mën a jouer parce que man par exemple mes enfants je peux dire à telle heure wala du ma leen jëndal téléphone Idrissa par exemple mon fils il a réussi le bac avec mention dem na yaa ngi moom donc am na téléphone. ñeneen ñi spare maintenant ak les cours en ligne dañ naan il faut ñu am téléphone et tout ça mais malgré cela war nga mun a euh, waxtaan ak ñoom di leen surveiller di leen encadrer ba également tey du am yeneen phénomène ñooy dugg ba ñëw modifier yar bi nga xam ne dafa nga say il faut loolu ñu ñëpp ñu bàyyi ci xel bañ yaa yaafuus bañ a def ko yitte suñ ko defee yitte yàlla mën dafa jàmm ndax le Sénégalais il bon c'est quelqu'un de bien quelqu'un d'intelligent mais également xam na lu baax xam na lu rafet xam na lu loo xam ne daal moom la ñu xam muy suñuy aada ak suñu cosaan te loolu nag il faut ñu koy rappeler xale yi suñ koy def rek ñun ñëpp vraiment di ko rappeler comme par pédagogie donc muy di ko répéter comme ni ñuy wax la répétition et pédagogique mën nañu dem ba vraiment peut-être yàlla dañ def sutura ba ni ñu euh, bëggee suñu société mu doxi ko ñu tëggee ko noonu éducation xale yi loolu ñëwaat incha allah rabbi ci éducation boobu la euh, ci biir euh, xutba gi imaam wax na tamit euh, ci manifestation yooyu weesu ah, ak yàqute tey nga xamante ne nemmeeku nañ ko waaye bakkanu yu rot ndax nee na kenn jarul ñi ñuy faat bakkan donc daanaka kenn waruñu topp kenn ba bakkan di ci di ci di ci rot loolu tamit mu mel ni dafay ñëw hmm. jusqu'à présent dans le cadre de l'éducation évidemment parce que ci éducation moo lay tax nga xam également sa rôle ak sa responsabilité ci biir société bi sa rôle soo ko xamee ci biir société bi dina tax fi nga war a dem nga dem fa li nga war a bokk nga bokk fa li nga warul bokk doo fa bokk mais également dina tax li nga xam ni war nga ko préserver ñàkk sa bopp d'abord nit kenn du la war bëgg bëgg sa bopp nit day bëgg boppam nit day fonk boppam mais également nit day fonk moroomam doomu aadama da ngay fonk doomu aadama beneen bi également mooy bakkan dafa cher ci suñu boroom cher ci nit ba kenn waru ko fooy dara warul tax nga ñàkk sa bakkan surtout nag ci loo xam ni jàpp naa ni mbiru àdduna la dañ ni sooy ñàkk sa bakkan ñàkk ko ci euh, mën naa ni protéger sa alal bi nga xam ne moom ngay suturloo te yàlla jox la ko nga xam ne mën nga ci mën nga ko protéger ba soo ci ñàkkee sa bakkan sax ñu xam ni yow vraiment da nga def ci ci ci ci li nga xam ni yàlla daf ko digal ba tax na kon li nga xam ni donc mooy muy manifestation yi comportement xale yi ak comportement sénégal yi mën naa ni loolu lépp base bi mooy l'éducation ndax ñun politique nañu très jeune mais am na loo xam ne mosuñu fa egg am na loo xam ne mosuñu ko xalaat sax ba fay ba koy def te loolu pourtant politique nañ politique bu ne def nañ ko te ñun dans les moments les plus difficiles ak président Ablaye Wade lañ commencé politique dans l'opposition pure et dure donc xeex pour euh, nu mu tudd renforcement de la démocratie bu ne def nañ ko fi xeex pour les les libertés politique et les libertés publiques et individuelles yëpp def nañ ko mais kenn masuñu dégg wala ñu egg ci yenn niveau yi surtout de violence jamais mais surtout li ñu ko doon teg mooy sur les principes sur les valeurs mais également sur l'intérêt général problème privé problème personnel masul nekk cause d'un combat ou bien donc d'un engagement politique sooy politique c'est pour sa askan sooy politique c'est pour sa communauté sooy politique c'est pour sa projet politique boo am pour lan jëmale sa réew sa kanam nga am ko bokk ay nit mu am ko nag ci ay nga doxal ko nag ci ay valeur ak ay principe ndax bëgg lu baax la rek kon ni ngeen koy gën a bëggee def leen ko ci jàmm mais également def leen ko ci ay principe ay valeur pour que dara bañ a ñaaw ëllëg ndax ñun comme ni ma koy waxee nekk dañu opposition ñafe ak président Abdoulaye ba am alternance en 2000 ñu dem tout c'est vrai ñu ne président Idrissa Seck ñu génn en 2004 continuer 2012 2007 dañu dem élection nekk deuxième donc deux mais président Idrissa Seck bi mu nekk opposition aussi li mu jànkoonte lépp d'après de 2005 emprisonnement yeeg lépp mais xeex nañu mais mosu leen ci dégg ko dee mosu leen ko dégg mosu leen dégg ku dee ci mbir Idrissa Seck ndax moom du woote violence xamu ko mais ñafe na nag sur les principes et des valeurs ñun tamit ñu am combativité ci terrain bi ba yàlla may ko ndam ci lañ ko doon takk donc ba tax na ñun politique boobu lañ xam. ba tax na kon ñun tamit dañuy invité tous les sénégalais surtout les jeunes ku bëgg politique c'est bien nga far nag foo la neex mais def ko ci ay principes def ko ci ay valeurs mais aussi def ko ci loo xam ne di nga préserver la stabilité et la paix dans ce pays ndax amuñu lu ëpp paix ak stabilité Sénégal ku xamul peut-être luy euh, euh, nu mu tudd euh, violence peut-être mooy mooy woote violence mais ku xam violence dëgg. xam li nga xam ne mooy moo jëm ci destabilisation pays wala guerre wala loo xam ni violence la fitna la doo ko woote jamais da ngay dëkk yi ñu réew yi ñu wër comme imam bi ni mu ko waxee fu su dëkk bi doon tàkk tey guerre amoon fa wala ñu ni euh, terroristes yaa ngi ci dëkk bi wala ñu ngay rayante suñu biir kan mooy tal julli ji ba tax na lu am na loo xam ne bu ko kenn gàngat Sénégal yal nañ ci yàlla musal ba tax na kon côté boobu daal ñu ngi ciy woote lu ñu mën surtout la jeunesse ñëpp ñu liggéey pour préserver notre pays mais aussi politiquement ku mu neex na nga def politique wala def ko ak ku la neexal mais nga daal ñëpp travailler à ce que la paix et la stabilité du pays soient préservées à tout prix. en parlant de paix et de stabilité le président de la république dafa woote dialogue ci dialogue boobu la daanaka dafa am solution yu ci ci génn euh, tey d' abord sa appréciation ci dialogue bi nga xamante ne am na ak li waaw xam nga ñun suñu culture Sénégal c'est un pays de dialogue ñun Sénégal d'ailleurs loolu moo tax violence peut-être du fi woon am ndax Sénégal dañ doon waxtaan dañ doon sax di werante nga gis kenn di kalante di waxtaan yoo xam ni ku nekk di nga wax sa moroom li nga bëgg bëgg a wax te doo egg ci dóor doo egg ci yenn yi moo tax Sénégal presque mën naa ni am na loo xam ne xamuñu ko fi ba tax na su loolu amee donc da nga koy sant suñu borom mooy li nga xam ne suñu wayjur yi mën naa ne bàyyil nañ ñu ko yeneen dëkk yi tribalisme moo fa am tribalisme mooy kii xeet bii la kii askan bii la kii waaso bii la yenn saa yi du ñu sax di jaloo gi yenn saa yi dañuy jàppante mooy tax gis nga dans les certains pays africains ray gis rayante yi jël ay coupe coupe ay hache yu tax ñu dialogue yi wala ay askan lañuy ñuy xool te ñun ñun Sénégal ñu ñëpp benn lañ ñu naan Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ba tax na ñun li nga xam ne moom moo ñu jik mooy waxtaan Sénégal dañ doon waxtaan ba tëggante dënd mais doo gis kenn dóor ñun loolu la ñu xam mooy le dialogue le dialogue dafa bokk suñu culture politique mais également suñu culture société dan lépp dañ ko doon waxtaan ba tax na kon su fekkente ni tey situation politique bi dafa toll nii président de la république am xalaat woote ndax woote woon na avant donc la covid ci biir covid bi aussi mu woote loolu lépp li nga xam ni euh, moom la ci jublu woon rek mooy ñu waxtaane solution yi ndax lii suñu benn mag doon wax ci politique naan dëkk dañ koy péncoo loolu moo am ba tax na kon defe naa ni dialogue bi il faut s'en féliciter ñun yàlla dogal na euh, ci dialogue bi président Idriss Seck amoon nañ fa ay représentant yoo xam ne ñoo ñu teewaloon ci dialogue bi donc suñuy orientation yi ak suñuy terme de référence ñu daal koy defar ak président jébbal leen ko donc wax leen suñuy préoccupation bi ñu demee également ba ñëw rendre nañu compte vraiment ci rapport bi globalement donc nous sommes assez satisfaits donc des conclusions ndax li am solo rek lépp loo xam ne déggu nañ ko bu tënk ko mu jëm ci intérêt Sénégal ñu d'accord nañ ci waaw te defe naa nii président Idriss sec ak euh, nos représentants auront l'occasion certainement donc de partager donc euh, de plus plus amplement de pense les conclusions mais defe naa remettre nañ ko président la République ñun ñëpp nag ñu ngi xaar naturellement te def na ko d'ailleurs une partie donc ci audience bi mu accordé aux acteurs le samedi passé wax na li nga xam ni moom la ci gis muy les dernières recommandation ak yim ci nga xam ne lépp presque validé na ko li ci des ñun ñëpp on attend son à la nation pour xool donc décision finale yi mu jël ci yenn aspect yi. discours à la nation boobu monsieur le ministre lan nga xaar ci président euh, ci discours boobu léegi rawatina ak lépp nga xamante ne xew na fi ak fi nga xamante ni foofu lañ jëm ci élection présidentielle aussi. waaw xam nga président de danaan ku wëli sa gul mënoo toj gémmiñam président de la république ñun ñëpp a koy xaar donc ñun ñëpp jàpp nañu ni il fera à mon avis discours bi nga xam ni moom la Sénégal di xaar moom lay laaj contexte bi li muy laaj dina ko def mais également li nga xam ne mooy décision yi mu war a jël jàpp nañ ni dina mettre en avant les intérêts supérieurs de la nation jël décision yooyu donc ba tax na kon ñun ñëpp ñu taaxirlu rek donc ñaan ko yàlla aussi nàmm xelam donc ba nga xam ni lépp lu mu jël comme décision mu nekk li nga xam ni moo gën ci Sénégal mais également gën ci askan bi. ñu ngi jël ci élection présidentielle euh, parti réew mi euh, foo leen toll ci wàccaay yi. macha allah ñu ngi ci wàccaay yi bu baax a baax ak président Idrissa Seck ñu ngi ciy travailler au quotidien donc en permanence également mu ngi ci terrain bi ñu nit am na lu ñu ci dénk ñu ngi ci donc ñu ngi koy rendre compte régulièrement donc ñu ngi remobiliser nos troupes aussi bien le parti donc que nos alliés nos donc ñu ngi ciy liggéey de manière permanente euh, et le moment venu naturel non la base mooy mooy jiitu base bi jiitu mooy mooy base bi ku nekk d'ailleurs ñun Thiès mais également suñu yeneen responsable yi ku ci nekk yaa ngi ci sa base muy les coordonnateurs muy les responsables les jeunes donc muy les femmes ku nekk segment bi nga nekk yaa ngi ciy liggéey donc yaa ngi également élargir di jël ay contacts donc di travailler pour élargir les bases président Idy Seck également qui est notre candidat mu ngi ci terrain bi également donc ñëpp gis nañ ko mu ngi en contact permanent avec les populations donc mu ngi waxtaan ak nit ñi mais également mu ngi tëgg programme am loolu lépp ñu ngi ci te xam naa ne moom a venu incha allahu rabbi donc vous aurez dina am euh, occasion waxtaan ak sénégalais yi waxtaan ak yéen ci lu gën a yaatu. ci tëgg programme boobu ndax bokk na ci li nga xamante ne moom la ñu bëri di njort mooy le président ma Sall bàyyil ko nguur gi wala mu doon candidat benn bopp yaakaar. non je pense président Idrissa Seck déjà déclaré candidature am donc euh, ñun génn nañu benn bokk yaakaar mais li ëpp solo rek mooy ñu xam ni président Idrissa Seck candidature am c'est une candidature sérieuse c'est une candidature de raison mais également c'est une candidature pertinente compte naturellement de son parcours compte tenu également de son expertise mais également de son expérience donc c'est un homme d'État achevé boo xam ni fi mu war a jaar yëpp jaar na fa donc li mu war a jàng jàng na ko li mu war a xam ci état xam na ko li mu war a liggéey ci réew mi aussi liggéey na ko ba tax na je pense c'est une grande chance pour le pays d'avoir un leader comme le président Tersek compte tenu naturellement de son parcours boo xam ni mën na nekk mën naa ne njëriñ bu baax a baax ci Sénégal. monsieur le gërëm di sant ñu bàyyi la sa kàddu bu mujj. maa leen di message nga xamante ne moom ngay lancé à l'endroit des sympathisants et des Sénégalais maa leen di sant di leen gërëm bu baax di am mbégte bu baax donc am ak yéen jotaay bi donc day ñaanal encore Sénégalais donc tabaski jàmm tabaski sutura tabaski boo xam ni day ànd xéewal également mais également ñaan suñu borom yàlla defal ñu ci Sénégal donc defal ñu fi jàmm defal ñu ci defal ñu fi dal defal ñu fi sutura defal ñu fi barkeel ak naataange mais également di inviter les jeunes donc euh, au travail ñun ñëpp ñu dellu ci waar bi donc ku nekk secteur bi nga nekk nga gën ci concentré wu secteur bi nga nekk nga gën ci laxasaayu secteur bi nga nekk nga ne faire partie des meilleurs donc nga donner le meilleur de de toi-même donc pour le pays Sénégal jar na ko donc sa askan jar na ko mais également sa njaboot jar na ko donc loolu nag euh, jeunes yi laa koy wax mag ñeeg ñun ñëpp ñoo ko bokk kon yàlla na ñu yàlla defal encore jàmm defal ñu sutura ma leen di sant leen gërëm di leen félicité di ñaanal également rajo bi télé bi ak site bi yàlla gën a barkeel lépp ndax euh, yéen tamit mën naa ni suñu bokk ngeen ndax euh, yàlla dogal na mën naa ni lu bëri Cees la juddu donc ba tax na dañuy ñaan rek yàlla gën a barkeel ba mu gën a law ñu ngeen ci mébét yëpp yàlla defal leen ko aussi may sant di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah alhamdulilah jërëjëf alhamdulilah